man boo u fait man maa ngi woon ci mag yi bi mu ko waxee noonu la demee maanaam question bu ma neexoon nag man question yi may posé yi moom neex genre question bu a laaj. parce que Serigne Touba nga bàyyi mag yi kontaan naa trop fils kontaan naa de. Eh, xoolal a ngi yëngal que question bi. non parce que man bi ma nekkee bi ma nekkee ci mag yi ah. muy def nii. Hmm. man maa ko njëkk def fii ci toog fii. maanaam man maa njëkk nekk jeune buy taxaw dëggal sama bopp di ko défendre Macky Sall maa ko doon wax Sall ngaari lam tooro mm-hmm. ma la bëgg a expliquer. Ousmane def sorti wala waa Pastef bu ñu mësaan def sorti sama téléphone daawul noppalu mais maam Thierno xanaa déggoo gars su ma génnee su ma dóoree rek ñëpp mooy woo ñëppay kontaan. ñii ba ma ba may affronté waa Pastef ñii ñëpp doon après laa may ñii ñii sama waa ñi après ñoom ci lañ mën a amee occasion sax ñëw di mën a. non non ñun non non non dama tànk. ah moom d'accord d'accord bàyyi ko mu dem. saa di nga souffrir nag de. mais dégg nga sax mën naa wax wër est-ce que nga maanaam noonu la demee li may rek man ma ma nekk fa di jàppale Macky Sall mais bi ñu demee bu législative yi jeex avant législative yi dama toog un jour defal la. Euh, élection su ma yi. élection ah, locale locale du ah, locale yi waaw locale yi voilà waaw yaakaar naa locale. yu mujj yi la woon mujj yi. yu mujj yi. ah oui kon yow yow yow bi nga bàyyi président yàggul. 2021 waaw déggoo la ma mais moom laa lay expliqué loolu tax man question bi am. man ci laa nag jour moo ko seraane mag sa président Macky di def euh, génn am dajale ndaw ñi di def genre ma xam ne kii xelam troisième mandat da cee nekk laa ko defal ko président nag maa lay wax sall ngaari lam man na woon ak ñun man ci laa lay topp ma ànd ak yow mukk ci troisième mandat bis boo demee nag ba taxaw yow nga ne li nga waxoon sénégalais yëpp di la déglu parce que président Macky Sall moo wax sénégalais man maa dégg mm-hmm. mu woo sénégalais sénégalais yëpp taxaw mu ne man day président dafa am lu ma jaaxal te man lu war lu lax mu lan la parce que man maa jël sénégalais yi woo yóbbu leen ci ay référendum pour ñu revoir constitution leen kenn mënul def ëpp ñaari mandat yi tegaloo nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs daan na waaye walaay daan na xanaa waaye loolu kay xanaa ku jàngul sax walaay ñu wax la ko kon yaakaar naa loolu leer na. fal nañu ba moom mu dem Macky président Macky Sall dem ma ne julli it ñaari ñaari rakka la waaw rakka bu jëkk bi juróom-ñaari kàbbar la bi te juróom. bu ma ko leer sénégalais yëpp ñëpp di ko déglu kon moom mu dem ba jeexal moom mu bëgg a tegaat yeneen pion pour toogaat non non non saa yi dafa ndànk man Macky Sall moo koy bàyyi kii ki muy àndoon mooy Lat Diop Lat damay bëggee Lat Diop mi wax noonu man rek lay bëggee est parce que li ma nekkee foofu ni ma ko doon défendre moo jaaroo yoon mais Macky bi mu jeexalee dama ne ko carrément da ngaa jeexal bàyyi ko fa non xaaral mu ñëw rek dama ne mais ni ma ko bàyyee sax moomu gën a neex dama ne ko képp koo xam ne nag mën nga fee nekk yow nga wax lu leer nañ Sénégal yëpp di la képp koo xam ne yow mën nga fee nekk yow yow kilifa nga taxaw wax lii moom bëgg a taxaw wax leneen ak di la défendre ak naan la Macky del waxal wax waxeen man ëllëg dama Maria man ëllëg samay dama doom samay doom samay doom. waaw xam nga samay samay mm-hmm. mais c'est vrai un jour seetlu naa ko mu def benn vidéo. Euh, gars yi gars yi Macky gars yi wër ko affaire gars yi naan non troisième mandat xam nga troisième mandat ma mu leen mu naan leen non non deuxième quinquennat deuxième quinquennat ku doon ah, sama copain waa ci <laughs> waa ci waa ci non su waaw dama naa xool non li may xool barki Seydina Mohamed moo ko wax xoolal naa ko no xoolal ah. ñoom dañu parfois sax problème boo gisee ma ba ci débatteur yi débat yi bu ngeen sànkoon ni mu daggee période yi li gars yi naan la peur a changé le fi tool dañoo té xoolal barki Serigne Touba loolu yàlla dogal fi tool dañoo toog ci donkaas bi fi tool yi loolu yàlla dogal crise bi muy wax nag ak li muy wax sànq que gars yi dañuy def ay pliage li tax nga bàyyi président Macky Sall buñ buñ ko dellusee waaw mooy dafa joxe kàddoom non dafa jeexal non dafa joxe kàddoom avant mu leer ñëpp dégg ko mu bind ko waaw def France 24 wax ko wax ko RFI mhm. wax ko Sénégal yëpp di ko dégg ngay jeune nga gis ne ma nekk jeune bëgguma samay doom ëllëg taxaw ñu naan leen seen papa mi naa fekk loolu man su ma ne woon fa laay toog ministère fa la nekk DG fa la nekk mais Sénégal réew mi day am fu muy dee ma tolloon da ngay génn liggéey moi je suis man bi may ne cëpp Dakar muy doog ñëw fii sama sac bi ma wàcce amoon foo fanaan. Mm-hmm. at lee laa doon fanaan di jënd jere deux cent ñaari mbuusu jere cent franc bu def ci ndox de noonu laa ko daan naane. Mm-hmm. yaa ngi moo koy doon doog a tijji jour bu ma tijjee sax lu ma jëndee ak far li gën a doy. Mm-hmm. cent franc laa yor ma jënd ci pain libre jël kaas ma def ci ndox naan man man amul réel niveau man góor yàlla laa man dama gëm faayit ba teg samay bopp liberté boobu noonu moo tax man du may wax kenn pour bëgg loo ma jox ñoom ñaar nag ma ci parfois booy dama leen suivre mais parfois yenn saa yi moom ñoom dama leen suivre nii ci vidéo TikTok yi ñu def ay vidéo mais damay fi ma toog damay xaw a déplané wu parce que parfois nit boo dee défendre li nga xam gëmoo ko nit ñi lay suivre dañ koy maanaam dañ koy yëg xam nga lu jógee ci xol ci xol la jëm mm-hmm. day sànni ne kii il n'est pas à l'aise mm-hmm. est-ce que am naa leen ko expliqué Macky problème dafa jeexal